gaa yi nag namoon naa leen namoon naa leen trop trop trop ndaxte depuis une semaine mi ngi nii defuma vidéo xam nga rek nekkoon ci euh, job bi affaire yooyu noonu quoi man moom dama yor ñaari job quoi parfois job bee moom may tënk moo tax chaque fois bu ma ci temps bu ndaw rek damay dikk rek bégal leen tuuti maa ngi raar nag mais teewul chaque jour sama xel mi ngi ci yéen quoi mais teewul ne chaque jour maa ngi siiw di xam actualité yi xew ci dëkk bi quoi xam nga li ko waaj di waxee rek maa ngi siiw dossiers yi Sénégal dafa nekk benn dëkk boo xam ne chaque jour kon door ko sa réveil y a des nouveaux dossiers. dëgg du romb nopp. dossier bi nag moom moo ci gën a soof dossier bi moo ci gën a salté dossier bi moo ci gën a vulgaire. mooy dossier Léna Gueye bi quoi. parce que man ba may zaal ba léegi mosuma gis jigéen bi vulgaire nii. Hmm? ndaxte kii ko ku wóobët la. nga ne. ndaxte Léna ci boppam lu summi slip yomb Léna lu summi slip yomb bu caméra yi mu ngi laajte ba xam daa war a summi slip wala warut a summi ci boppam lu summi yomb bañ na ko ba casting réussir ko rek yaakaar na ne wane bëtu gaynde war na faa mën a am. man xaw ma yenn lan moo ko tax a bëgg lu bon ak mën a promouvoir lu bon. moo ma jaaxal. bu loolu weesoo gars yi nañ seetaan vidéo bi te ñëwaat doo cee ci suufu tatouage bi hmm. soo ma résisté ma xam ne am nga gàll. Mă, dar ce se păr, da? yaa Cheikhul Ibrahima Baba Lamine Diassi. seetetetet man tey laa jom nag tey jii rek laa waaru xool ko góor ki moom di tàqamtiku leer na ma fayin ko lii mooy paiement am. ah dee waay dee. <laughs> dara gën a bon nag nga joué série ba mu jeex. pare de laaj sa paiement ñu la nga daan tàqamtiku mooy sa paiement. nga ne. wala sumi silib nga daan sumi silib mooy sa paiement. quel défaite orphelin. astafurlah. waaye nag nag nag est-ce que jigéen gi summi ay slip ak góor gi tàqante ko mën nañoo nekk ay acteur duñu artiste abo ah ñu ay artiste de hmm, duñu artiste casting moo leen boole ci art bi enfin li ma takkee ñu am art bi moo raw rido may nga yaa gis façon client bu ne mais nag leena moom heure bu duggee may nga du laaj spaghetti du laaj pomme de terre moom day brochette rek ak ah, rajam max rajam baax war naa def lii leen def ñuy tey man bu ma toll woon nag moom âge bi ma am nii nit mu ne ma koo def loo li nga mooy dëgg loolooy dëgg sax ndaxte image yi du yem fii day continuer fii ak ay ati ati ak say sët buñu dëkkee naan xaaral ñu tàppe suñu silibu maam leena bi xay-xay hmm? loolu la ñuy wax de ba pare insister ci naan suñu silibu maam leena bi defoon na fi bës de jamono yi ku timba mboobu ana bi suñu maam kon di xar géej gi li nga wax mooy dëgg ah oui ndaxte YouTube ak guluba bi ñooy am lépp lu fi xas a dugg du génn. loolu dafa ñaaw nañ waxante dëgg dara mënu ko justifier. mais c'est bizarre. xanaa xamoon ne li génn nii ci infidèle man bett ma woon. yow looy wax ni. ndaxte infidèle dana tëll ñii day yàq xale yi. pour lan. parce que jàngale wuñ suñuy valeur te wane wuñ suñuy culture. dëgg du rombi nopp. te buñ ci xaral suñuy tànk tubéy leneen dina ñëw te moom mooy gën a pire lii gën a nii. ah waaw baax na li est-ce bu gars yi nag bëgg ko lancement bëgg gars yi ko nekk. te nag kaay ma gis nga li ngeen a def nii képp kuñ ko loo nga def ko. caga de luxe nga. aw ah wii ndaxte ñun duñu ay américain nii américaine te duñ nangu kenn duñu dund la affaire de ak Cardi B. fii du États-Unis de. fii Sénégal la ay kilifa dañ fee nekk te ay kilifa dañ fee tëdd. boo leen buggee yooyu ngeen dem états uni ngeen dund ko foofu. fii yooyu dox fi de. fi senegal la affaire yu bon yoy mom du fi dox te du nang kenn du ko fi doxal. ndax man dara safuma dara safu la moom ndaxte da nga jël gatché rek wal ko ba noy nepp tok di xaar. ma rombé gatché dama koy ruy naan kon ki ngay waxal xam nga loolu feregewu ko. xam naa ne feregewu la kay ndaxte da nga ñak fayda. ki dof pilis la. te sax ñak fayda wessul yow nga nekk ak sé moroom bu nawle yow buñ né prime dib rek nga sumi sa sirib un deux trois nga naan ay bëtu gayné dama ko tenté wal dama ko dabala wal dama ko ndel lo xamné affaire du ñak fayda la pour man am na loo xam ne jigéen ci boppam moo ko war a bañ mais leena bu ñëpp dib rek muy wax affaire de batu gaynde wala ay soumissi moom daal affaire de vulgaire rek moo moom ñoom caméra bu ñëpp dib ah eh am na caméra bi am na am na damay jàngale gaaw la am. moom daal bu ñëpp dib rek gars action leena commencé wane slip gars yi naan nii bu yàggee affaire yu ñàkk fayda lay doon. gis nga jigéen ci boppam dafa war a am dignité am lu muy bañ am lu muy jomb.

waaw ndaxte on visesse quoi parce que lii moom doxul lii moom day yàq bu baax a baax a baax. li nga wax mooy dëgg. kon boog gars yi vidéo bi loolu la woon euh, ko defee nag gars yi euh, ñu continuer rek respecter mesures barrières yi te ñu takk masques yi fu mën di toll gars yi takk leen masques yi te ñu raxasoog gel yi <coughs> gel yi bu ñu ko sol nañ ko sol takk masques yi yi wala ñu yi. respecter mesures barrières yi bu baax baax a baax baax a eh, yi nag lu waxtaan bi neex neex neex wala mu métti métti métti. bu leen fàttali ne kun kane dafa war a xew géej gi jour tamxarit fàttewuñ ko man moom dinaa ko def en direct bu ma defee ci ñu demul waaw métti Apple moo ma jox iPhone bu bii waaw pour def ko en direct fële ca ca ca Soumbédioune di ko jox ñi nga ñi nga xamante ni waaw. kon boog gars yi dem leen seeti mère Apple mu jox leen ci iPhone yu rafet yi man de lii laa wax mbaa yi nii ngeen wax. ñun lii nañu mën a wax Ndoye Ndiaye. asalaamaaleykum wa rahmatulaahi taala wa barakaatu. bu ko defee nag ñu bàyyi maam mu ñaan ñu ba yoon